الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومهوى الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان هناك علامات من علامة الشقاء يقول العلماء من علامات الشقاء إحدى عشر خصله النقطة الأولى أن يكون العبد حريصا على جمع المال الثاني أن تكون نحمته في الشهوات واللذات في الدنيا النقطة الثالثة أن يكون فاحشا في القول مكثارا النقطة الرابعة أن يكون متهاونا في الصلوات النقطة الخامسة أن يكون أكله من الحرام والشبهات وصحبته مع الفجار mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala ginnaaw ba nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk julit yi sunu boroom subhaanahu wa taala ginnaaw ba munu sàkkee wàcce ñu kaw ci kaw suuf sant nu nu jaamu ko dafa am xabaar bu mu ñu wax ne ñi ma jaamu am na kër goo xam ne falaa leen di dugal mu tuddee ko aljanna mu ne li ma ñi lànk bañ maa jaamu am na kër gu ma leen di waajal ñoom it mu tuddee ko safara waaye kër googu di safara borom bi ne duma fa dugal ay nit lu dul ci àdduna ku leen xool danañ xam ne ñii foofu lañ jëm borom bi subhaanahu wa taala pour nit ñi xam ne ñooñu bu leen tàbbalee foofu tooñu leen mu utal leen ay màndarga yu leen doomu aadama yi war a xàmmee ba ëllëg bu leen fa borom bi tàbbalee ku leen gis xam ne ñi yàlla tooñuñu leen mbokk yi ci yàlla boroom xam-xam yi utal na ñooñu ay màndarga màndarga yi wane ne ñoom ñii kat dañoo texee di ku texee di mooy ku dugg safara ñu utal leen fukki tomb ak benn yuy wane ne ñii danoo texee di danoo alku ëllëg safara lañ jëm kon dana jaadu ci ñun ñiy jullit màndarga yooyu ñu xam ko ñu natt ko ci sunu bopp bu dee am na benn bu ci nekk ñu jëm ko dindi bu fekkee nekkul ci ñun ñu xam ko te sori ko jéem koo soriloo suñuy mbokk ak suñuy njaboot ndax ñi mel nii ñépp ñu texee di lañ ci kanamu yàlla te ku texee di ci kanamu yàlla ëllëg borom bi subhanahu wa taala day jëflante ak yow yooyu tomb bi ci njëkk mbokk jullit yi mooy an yakuna harisan alal jami ala jami lmaali saa yi ñu gisee ab jaam muy daw rek ci ginnaaw alal jàpp na rek alal mooy tax dundam baax te alal jooju faalewul fu dagan la wala fu xaraam day dajale rek di jël nanu xam ne ku texee dee ngi nii ci kanamu yàlla tabaraka wa taala ëllëg ndax ut alal de yàllaa ko santaane liggéey yàllaa ko santaane waaye dafa am anawin wun la ko waxee nga sàkkoo ko ni nga fàggoo ko fàggin woo xam ne dafa dagan jaar yoon waaye alal ji na nekk alal ju dagan ab jaam nag su ko alal yitteelee ba faaleetul fu dagan faaleetul fu araam day daw di jël comme tey ni ko àdduna wonee nga xam ne yi araam yépp mooy tax nit am nit ñi dem jublu ci lu araam loolu ku nekk xam ne ne làmb dafa xaraam am am bi daganul waaye xoolal nit ñi doo dégg sax borom kër yi ñuy xeex ak seeni doom pour bu ñu jaar yoon woowu déedéet léeg-léeg sax am ci koo xam ne danaan doomam cim sa doole ji nga ñàkk fayda say moroom dong ñoo fi fayee kuy million te xam na ne million yooyu araam na waaye yoonam nekku ci musique bi pecc mi futteeku def yaramu neen wi gis ngeen caay-caay ji ni mu bëree pourtant ku nekk saay-saay rek am alal moo tax nit ñi noppi bëri na ñu war a wax waaye lu tax ñu noppi mooy alal jooju dañ ci am dañ leen ciy coppotil seen wàll ñii ñu ne la dañ la ko may ñii ñu ne la sa wàll la ñii ñu ne la addiya la moo tax ñëw ñëm noppi au lieu ñu wax waaye ñu noppi te xam nañ dafa araam borom bi jàngal ñu ci saar boo xam ne ñun ñëm mokkal nañ ko ci suratu humaza mu ne ay jaama ngi ni ñoo xam ne dajale alal rek ba sax dañuy dem ba yaxsabu anna ma lahu axlada dañuy dem ba jàpp ne alal ji dana leen tere dee yàlla mu ne kalla la yumbadanna fi lxutama giñ naa ci sama màggaay bëccëg a ngi ñëw dinaa ko dugal ci safara soo xam ne day damm ay yaxam ñaareel bi ci màndargay texee di mooy an takuna nahmatuhu fi shahawat walladhat fi dunya benn jaama ngi nii boo xam ne li ko yitteel ci addunaam yépp mooy bànneexu bakkan ashahawat bànneex rek na bànneexam suur na bëgg-bëggam am loolu rek dagan na araam na yoonam nekku ci ay yëngatoom yépp pour bànneexam na ko régler te jàng nañ ci Qur'an borom bi ne subhanahu wa taala fa amma man taxa wa athara alxayata addunya fa inna aljahima hiya almaa wa amma man xaafa maqaama rabbihi wa naha nafsa an ilhawa fa inna al jannata hiya al maawa borom bi nee na képp koo xam ne xeex nga ak sa bànneexi bakkan ba gañ a bakkan bi ba nga tënk ko yeew ko di ko jaarloo fi yàlla bëgg yow day ëllëg yawmal qiyaam dara du sa fay lu dul aljanna kon ku libéré bakkanam boyal ko topp ay bànneex lu muy dugg pour bakkanam suur la pour bëgg-bëggam mu réglé ko borom bi nee na ku gis ku mel noonu bu yeboo nga lim ko ci ñi texee di ñiy lakk ëllëg ñetteel ci tomb yi nga xam ne ay màndarga la yuy wane ne ku mel nii texee dina an yakuna fahishan fi l qawli miksaara saa yu ñu gisee ci sunu dund koo xam ne làmmiñam dafa ñaaw bari wax ku ko seen muslu ci moom kër gu mu dugg ñooñu du ñu féex du ñu am jàmm lu dul ñu réglé ko li mu bëgg ndir ngir mu gaaw a dem ndax làmmiñam ju bon waxam ju bari ku gis ku mel noonu rek xamal ku texee dee ngi nii ndax wax munta ñàkk ndax yàlla moo nu utal gémmiñ utal ñu làmmiñ waaye def ñu sant ñu wax wax ju baax wa qulu linnaas xusna yàlla leen nit ñi bu ngeen di wax ak ñoom na rafet maa yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid yàlla nee na dama leen booleeg ñaari malaayika nanu leen garde ndey joor ak càmmoñ lu ngeen wax ñu bind ko lu ngeen wax ñu bind kon ab jullit dafa war a yeew ab làmmiñam ba làmmiñ bi du ko alak ci wax ju bareeg wax ju ñaaw borom làmmiñ bu ñaaw na yëg ne moom ku texee di la ëllëg ci kanamu yàlla bu tuubulee ñeenteelu tomb mbokk yi ci màndarga yi wane ne ku mel nii ku texee di la an yakuna mutahaawinan fi salaat aw fi salawaat saa ñu gisee ku sàggane julli bu julli jotee day ataaya wala day setaan marche wala day setaan làmb wala mi ngi ci liggéeyam wala mi ngi ci li ko occupé ba du jàpp jóg dem jàkka julli ji ku gis ku mel noonu ku texee dee ngoog bu dee góor bu dee jigéen bu dee mag bu dee ndaw képp koo xam ne danga sàggane julli ku texee di nga ëllëg ci kanamu yàlla tabaraka wa taala jàng nañ ci saar woo xam ne danañ ko romb guddeeg du guddi ak bëccëg ci suratul maun borom bi ne ëllëg yowmal qiyaam am na ñoo xam ne ci xuru safara laa leen di dugal mu ne fa waylun lil musallin man hum alladina hum an salaatihim saahuun borom bi nee na am na ñoo xam ne ci xuru safara laa leen di dugal xóot na xóotaay boo xam ne buñ ci sànnee ku dul jaamu yàlla balaa muy laal suuf mu am juróom-ñaar fukki at borom bi nee na ñooñu di sàggane julli laa fay dugal ñoo ñooy ñan bala ñuy julli mu naaj balaa ñuy julli fajar mu naaj fekk nit ñi julli nañ ba ndekki ba xëy balaa ñuy julli tisbaar tàkkusaan jot balaa ñuy julli tàkkusaan wala tàkkusaan sax duñ ko julli ndax day fekk ñu ngi ci télé bi occupé nañ wala ñu ngi ci terrain yi wala ñu ngi ci stade yi wala ñu ngi ci làmb yi duñ julli timi sa gée moom waxi noppi duñ ko julli képp kuy sàggana julli wala ngay dajale julli yi yow bu yeboo nga xam ne yor nga màndarga ci màndarga ñi texee di juróomeel an yakuna akluhu min alxaram wa shubahat wa suhbatihi ma alfujjar bokk na ci màndargay texee di mbokk yi lekk lu araam lekk lu lënt ak ànd ak ay saay-saay ay kàccoor képp koo xam ne ci ñun li ngay lekk dafa xaraam xooloo li ngay lekk xooloo fi nga ko jële xooloo fu dagan la xooloo fu araam la képp koo xam ne ci ñun li ngay lekk ci lu lënt la bàyyeekoo képp koo xam ne ci ñun ñi la wër yépp ci say àndandoo kenn baaxu ci ñépp ay saay-saay lañ ay kàccoor lañ borom bi nee na yow ku la séen na xam ne yow benn màndarga buy wane ne ku texee di nga mu ngi ci yow ab julit dañ ko sant mu lekk lu a- dagan mu moytu lu araam bokk na ci lekk lu dagan day tax yàlla nangu say ñaan li tax réew mi tey treize millions ak nangam genn wàll gi yëpp nekk ay julit ñuy ñaan yàlla yàlla munu noo may parce que li ñuy lekk genn wàll gi yëpp dafa haram te kuy lekk lu araam boo ñaanee yàlla du la may jàng ngeen ci hadis bi imaamu nawawi moo ko nettali ci téeréem ba yonent yàlla Moussa moo gis waa joo xam ne ma nga ñaan yàlla ba poqotaan yi feeñ yëkkati ay loxoom Moussa ne yàlla waaw kii doo ko may yàlla ne ko duma ko may de lu tax mu ne ko li muy lekk dafa araam li muy naan dafa araam li mu sol dafa haram fi mu toog dafa haram ku mel noonu naka la ko yàlla di nangulee kon julit foog muy lekk lu dagan inna allaha tayyibun laa yaqbalu illa tayyiban yàlla dafa teey yàlla dafa set dafa laab su fekkee julit bi lépp li mu am ci lu araam la bàyyee ko day sonal boppam ci jaamu yàlla waaye yàlla du ko ci fay dara puisque lu araam lay lekk te yàlla du ko nangul benn ñaan ñaareel bi julit na mooy tandiku jële alalam ci yu të lënt yu lënt yoo xam ne dara wóoru ci beneen bi mooy booy ànd àndal ak ñu baax wa suhbatul fujjaar ànd ak ay kàccoor day tax nga texee di ëllëg ci kanamu yàlla tabaraka wa taala gis ngeen abu taalib maamu yonent bi alayhi salaatu wasalaam wala bàyyi taxam dara taxul mu dugg safara lu dul ànd ak ñu bon keroog ba mu nekkee ci sukuraat di faatu yonent bi toog ci wetam ne ko waxal laa ilaha illa allah ma ñaan yàlla nga dugg aljanna gaa ñi naan ko ah da ngay saalit mbaa du xale bii ngay topp bàyyi sa diiney maam mu ne maa ngi dee ci samay diine maam mu daal di dee dugg safara te yonent bi benn baat dong la ko wax mu wax ko su ko waxee yàlla dugal ko aljanna yonent bi ne dinaa la solal robb avocat ñaanal la yàlla taxaw ci kanamu yàlla soo waxee baat bi mu ne maa ngi dee ci samay diine maam lu tax xarit yi ko waroon ñoo ko dëgëral ñoo ko ne bul dégg xale bi li mu lay wax deewal ci li nga nekkoon mu ne maa ngi dee ci sama diine maam tàbbi safara mbokk yi ci yàlla juróom-benneel ci mandarga yi wane ne ku mel nii ku texee di la an yakuna sayyi'ul xulq borom jikko ju ñaaw ab julit su jikkoom ñaawee ne yëg ne moom ku texee di la ëllëg ci kanamu yàlla ndax dig jikko mooy diine yonent bi dañ ko laaj mat diin mu ne ad diin husnul xulq lan mooy diine mu ne diine mooy nga rafet jikko képp koo xam ne ci ñun yaa ngi julli yaa ngi woor yaa ngi joxe azaka yaa ngi jàngal quran yaa ngi wird yaa ngi yaa ngi waaye sa jikko dafa ñaaw bu yeboo nga xam ne amoo diine diine dafa war a defar sa jikko julli daf koo war a defar sarax daf koo war a defar jàngal quran zikr dafa war a defar sa jikko su fekkee yow yaa ngi def yooyu yépp te sa jikko baaxul yaa ngi lor nit ñi yaa ngi lor say dëkkandoo yaa ngi lor ñi nga nekkal yaa ngi leen di bunduxataal yaa ngi leen di fitnaal seetaatal sa bopp xamal yow amoo diine xamal mandarga buy wane ne da ngaa texee di mu ngi ci yow soo faatu ak moom bu la yàlla yërëmul jéggal la du baax ci yow ixwatal iman juróom benn tomba ngi nii yuy wane min alaamati shiqa ñu ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu teggil ñu ko bu nekkee ci ñun bu nekkul ci ñun mu soril ñu ko ba du yegsi ci ñun aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa alghafuru rahim الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله mbokk yi ci yàlla juróom ñaareel ci mandarga yuy wane ne ku mel nii ku texee di la an yakuna muxtaalan mutakabbiran faxuura benn mandargaa ngi nii buy wane ku mel nii ku texee di la mooy lan kuy nganda ngandalu ku yéem boppam kuy rëy rëylu kuy tiitaru ci kanamu jaamu yàlla yi foo ko gis mi ngi ngandal mbagg mi ngi rëy rëylu te xam ngeen ne rëy li ci yàlla wax subhanahu wa taala yonent bi nee na yàlla nee na ci hadisul qudsi rëy sama mbalaan la man yàlla ku ko xëccoog man danaa la yenu ba ci kaw teg la ci suuf ba nga gën a suufe lépp dootoo yëkkatiku kon ab julit du rëy ab julit laa yakuna muxtaal kuy wanewu di gistalu ci kanami moroomam waaye du rëy rëylu waaye du tiitaru ndax yi màndarga yépp màndarga kuy texee di la moom la yàlla xase xasee woon walid ibnul mughira walid ibnul mughira bi ko yàlla di xas ci qur'an baat yi la yàlla utiliser ne mashaa'in binamimin mannaa'in lil xayri mu'tadin ahim mu ngoog kuy ngand ngand la kuy rëy rëylu la kuy wanewu la moom nii la mel nii la mel nii la mel yooyu màndarga ku ko am na nga yëg ne am nga ci màndarga yi wane ne ku ko am texee di nga juróom-ñeenteel an yamnaa manfaatuhu anin naas mooy say xéewal yi la yàlla defal nga koy xañ jaami yàlla yi li nga am doo ko bokk ak kenn doo dimbali kenn sa bopp rek njariñ yi la war yépp yow kenn la keneen bokk ci ku mel noonu ku texee di la ab jullit day jëriñe xayru naas anfaahum linnaas yonent bi dañ ko ne ku gën ci nit ñi mu ne kuy jëriñ nit ñi soo bëggee gën ci nit ñi del jëriñ nit ñi boo bëggee texee di nag li nga am yow kese bu ci kenn bokk saa yoo melee noonu xamal ne yow ku texee di nga ixwatal iman juróom ñeenteelu melokaan an yakuna qalilu rahma lil muslimin mooy nga néew yërmande ci jaami yàlla yi allahu akbar nga néew yërmande ci jaami yàlla yi jaamu yàlla yi yow amoo koy yërëm amoo li la wër ci sa environnement looy yërëm ku mel noonu ne yëg ne màndarga texee di mi ngi ci moom ab jullit day yërëme sunu borom subhanahu wa taala moo sàkku ci ñun ñu yërëmante sunu biir yonent bi ne arrahimuuna yarhamuhum rrahman ñii yërëme yàlla dina leen yërëm mu ne irhamu man fil ard yërëm leen ñi ci suuf yarhamukum man fi sama ñi ci asamaan yërëm leen fukkeelu tomb an yakuna baxiilan mandarga buy wane ne kii ku texee di la mooy mandarga nay ndax yonent bi nee na albaxiilu laa yadxulul janna ku nay du dugg aljanna fukkeelu tomb ak benn an yakuna naasiyan lil mawt mooy mu waa ji nga gis ko mu fàtte dee moom yoonam nekku ci dee jàpp na ne moom du dee dee moom programme boo xam ne moom du ko jot chaque jour mu dégg nit ñaa ngi dee waaye moom du tiit du raf pour moom moom dee bokk ci saa yoo gisee ab jaam bu fàtte ne dee am na moom dina dee yëgal ne moom ku texee di la parce que du jub mukk parce que doomu aadama toog ba ci yàgg xelam dem ci yàlla mu jàpp ne day dee mu jàpp bis day ñëw dañ koy génne ci këram dugal ko ci arme ci armeel yi dugal ko ci morgue bi sang ko sang ko yóbbu ko ci armeel yi suul ko loolu day tax mu dellu siwaat loolu day tax mu tuub loolu day tax mu xoolaat boppam waaye saa yoo gisee jaam buy fàtte fàttelu dee yëg leen ne jaam bu texee dee ngoog jaam bu yàlla nara alak ëllëg yowmal qiyaama ngoog yal nañ yàlla mosal musal ci fukki melokaan yi ak benn nga xam ne boroom xam-xam yi nee nañ ku ko am rek ku texee di lay doon ci kanamu yàlla allahumma ixfir lana qabla al mawt warhamna inda al mawt ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا على اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا على اجتنابه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم نسألك أن تردنا على دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك أقيم الصلاة incha allah mbokk yi bu ñu paree julli ñu bañ a yàkkam ci dem dafa am benn mbokk buy dugg ci lislaam incha allah bismillah الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة على الفلاح قد هامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
sawwu wa atadilu ñu tollale sàppe yi fatt diggante yi allahu akbar
الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون الله أكبر الله أكبر
سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذي العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ الله أكبر الله أكبر
سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد
allahu akbar الله أكبر
allahu akbar الله أكبر
allahu akbar الله أكبر
allahu akbar الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
اللهم أعني على ذكرك وشكرك اللهم أنت salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi ñaan yàlla tabaraka wa taala yal nañ yàlla nangul incha allah ñu bañ a yàkkamti dañoo am benn ndollent ci biir lislaam mooy koo xam ne dafa bëgg tey bokk ci diine lislaam bokk ci ñi nga xam ne dañuy kennal yàlla tabaraka wa taala génn ci lëndëm dugg ci leer te loolu xam ngeen ni lislaam digee ku ko fekkee kon ñu bañ a yàkkamti bu ñu paree incha allah ndimbal bu ñu am aussi ñu indi ko jàppale ko incha allah ci kàttanu yàlla léeg-léeg nag am na ñu koy def di tricher waaye li ñu wóor moom moom kii moom mooy bokk ci kii moom ku toog la ba mbir mi convaincre ko mu jàpp ne dafa war a dund diine mu ñëw tey fas yéene koo leeral incha allah ci kàttanu yàlla
incha allah jazakallahu xayr moom laaj naa ko sax laaj naa ko daal tax nga bëgg dugg ci moom laaj am nañ incha allah ñu ngi alhamdulilah alhamdulilah wahdahu wasalaatu wasalaam ala man la nabi ba'd tey mbokk mi nii ci benn kaar lañ des rek yàlla def mu doon déglu benn waxtaan ba yàlla dogal mu naw dugg ci islam ala kulli haal ñun waxtaan nañu moom laaj nañ ko daal mu ne moom diine bi mu nekkoon gis nañu ñoom kenn du leen jàngal dara bon donc tey gis nañu moom dina islam lépp looy def am na loo war a wax xataa booy dugg duus parce que yu mel noonu la ñu leeral nee na loolu nag moo dugg ci xolam ba mu ñëw dugg ci islam mais nekkul sax moom daa waxoon sax ca kaar ba nañ ko fa tubale dafa waxoon ca kaar ba nañ ko fa tubale ñu ne ko déet doon nañ jéem a indi ko ci mbooloo mi mu am seede kon ñu xam ne incha allah ñu rafet njort ci moom daal xam ne incha allah ñu congolais la quoi léegi nee na nee na Cheikh Ibrahim la ba ko tudd asito ala
dégg naa la dégg naa la mais dégg na wolof mais du comprendre quoi mënu mënu ko wax quoi parce que yàgg na Sénégal def na fi sept ans alhamdulilah kon yàlla def na étranger la congolais la de deuxième mooy def na fii sept ans ci Sénégal kon euh, alhamdulilah li ndolleen ci la boo xam ne day wane ne day wane ne jullit ñi war nañoo góorgóorlu parce que xam ngeen ne tey li ñu jàng ci diine bu fekkoon ñu ngi koy leeral ñu ngi koy dund ñun jullit ñi kon diine ji du taxawaalu kon diine ji ñëpp ciy dugg waaye li tey gàllankoor lislaam mooy ñàkk koo jàngale ñàkk koo leeral ñàkk koo dund ndax li mu wax mooy dëgg mooy diine lislaam lépp looy def rek am na looy wax lépp looy def dafa am looy wax booy lekk booy naan booy solu boo simmeekoo booy tëdd boo duggee ci toilette booy sol sa dàll booy sol sa yére diine lislaam du diiney làmbatu diiney jàng la moo tax aaya bi ci njëkk a wàcc lan la wax iqra bismi rabbika alladi xalaq jàngal kon suñ doon jàng suñu diine suñ doon dund suñu diine wallahi ñëpp dinañ nu fekk si bu leen fàtte ne yonent bi ñaar fukki at ak ñett la dund diine juróom benn fukki at la am bi ma amee ñeen fukki at la ko yàlla yónni ñaar fukki at ak ñett la dund diine ji waaye ci la tasaare diine lislaam bi yépp ci àddina bi ci golf bi génnul àdduna lu dul diine ji tas lu ko waral mooy jàng ko ak dund ko réew mu lislaam dem waa réew ma dañuy xam ne ñoom dañoo tardé dañuy bàyyi la ñu nekkoon topp diine kon tey bu nit ñeneen ñi ñëwee bañ a dugg ci diine rek mooy ñun la ñun ñoo wanewul diine ñoo ko jàngul ñoo ko jàngalewul ñoo ko dundul am na benn waay bu tuub France xam nga lan la wax maa ngi sant yàlla mi ma jàngal lislaam balaa may xam jullit yi mu ne bu fekkoon ne jullit yi laa njëkk a xam du ma tuub waaye maa ngi sant yàlla bi jàng diine ba pare doog a tuub parce que diine ji la muy wax jullit yi nekkuñu ci kon sunu mbokk bi dinañ ko tuddee Seydina Ibrahim incha allah bi iznillah bu nu waxee après nga topp ci hmm? ashhadu ashhadu an la ilaha Allah ilaha illa allah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna muhammadan
Muhammadan muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu wa rasuluhu ashhadu ashhadu an la ilaha an la ilaha illa allah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu wa rasuluhu ashhadu ashhadu an la ilaha an la ilaha illa allah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu wa rasuluhu incha allah bis ni ki tey dugg na ci lislaam li war julli yépp moo ko war julli koor boo amee alal génne azaka boo amee alal dem màkka lépp lu war julli di bis ni ki tey war na ko léegi nag li ñu koy li ñu koy conseillé mooy dugg ci lislaam rek du doy mooy foog mu jàng foog mu jàng jullit li koy jàppale ci diineem mooy jàng jullit bu jàngul day làmbatu day nekk taxankat guddi kon ñu ngi koy conseillé loolu incha allah comme xamante nañ ak mbokk yi nga xam ne ñoo ko indi fii dinañ jàppalante ak moom ci wàllu njàngam ak encadrement am bi isnillahi tabaraka wa taala ñu ngi lay ziyaare bu baax frère am frère am bëgg naa tuub frère am in- incha allah ma tukki quoi ni mu ñëwee bu soobee yàlla danañ ko andi quoi incha incha allah yal na yàlla yombal loolu asalaamu aleykum wa rahmatullah allah waaleykum salaam yal na yàlla jàppale waaleykum salaam En fait, j'ai une question à vous poser. là.
bismillah dañ daan question bi posé quoi
Tout à l'heure, là, il disait pour la, pour la danse, quoi, mais mon, mon métier, j'ai j'ai fait la danse. Là, c'est pour- pour- voilà waaw voilà moom il dit que sa profession c'est la danse maintenant maintenant qu'est-ce que l'islam nous recommande pour que c'est ça léegi am na permis daal léegi maintenant moom sa profession c'est la danse quoi maintenant qu'est-ce que Loolu lay l'islam- liggéey.
waaw loolu lay liggéey quoi il- il enseigne la danse quoi waaw léegi- loolu lay jàngale loolu lay liggéey loolu lay liggéey.
incha allah loolu lépp dinañ ci waxtaan bi iznillah lépp yàlla dina leeral mbir yi bu soobee yàlla incha allah on va discuter de ça après Inch'Allah, C'est Inch'Allah.
pas ici la place Barakallahu fik. Jazakumullah il a khair.
un permis de conduire quoi Inch'Allah pour que comme la ñu xalaatal Bisaba yàlla soo ko inshallah.
bëggee bàyyi loolu itam doo ko am la Papa, nga get busy.
Assalamu alaikum.
jokkoo ustaas rek Barakallahu fik. Jazakallahu khairan. Allah yubarik fik. Hayakallah. Hayakallah. Yàlla yàlla taxaw. Assalamu alaikum. Inshallah. Ah, Cheikhana. Ñu ngi ziar. Seydi. Waaw waaw waaw.
xam naa ne dafa tawat fan yëpp liggéey si ma.
Ah, waaw li mu ma un mois moo ma joxoon liggéey pour ma jox.
d'accord d'accord. Kon dinaa ko woo waaw. Inshallah jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf. Jazakumullah khair. Ana Seydi. ak salaam mbokk na ngay tey waaye si la ndigaale xëy na am dëj waaw mbokk yam ko doon salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk jërëjëf jërëjëf jazakumullah xeer jërëjëf jërëjëf alhamdulilah na ngeen def na ngeen yendoon bàyyi nañ jaam jërëjëf jërëjëf salaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum jërëjëf waaye li ah ndeysaan ndeysaan jërëjëf jërëjëf jazakumullah xeer jërëjëf jërëjëf jërëjëf sant yàlla rek